Aïda Samb lu rëy la lu rëy la wax fa yàllay defaree jaam loxo yeggu fa bëggoo ma di ma toppandoo di ma xas di ma toppandoo di ma indil ay problème di ma toppandoo en tout cas toppandoo c'est un titre qui cartonne actuellement Aïda Samb mooy nekk suñu invité euh, suba ci midi plus bi dina ñëw ñu waxtaan euh, ci ay projet am dina ñëw ñu waxtaan ci label bu bees bi mu ubbi Euh, di labelu Sénégal ak dina dinañu wax ci projet album bi dinañu wax ci tournée bi muy préparé mais dinaa ko taaj teesante mu wax ma woy wi ndax man la ko woyal parce que woy bi man dama cee gis sama bopp woy bi je me vois dedans Aïda daa mel ni man lay waxal léegi rek si vous nous rejoignez ñu ngi ci deuxième partie mi de plus sànq dañoo tàmbali di expliquer actualité ak Corombaar Ndiaye Seck faf 13h euh, jot. Cheikh Ngoné doon ñu présenter journal wolof bi li ñu ciy def rek mooy àggali li ñu doon waxtaanee balaa ñuy recevoir suñu invité Jamila euh, viendra nous Jamila nag dafa jógee euh, Bamako euh, bokkoon ci concours Miss Petite Taille dañuy waxtaanee handicap ak résilience c'est vrai que jàmbaar la ci elle inspire tellement de personnes regardez événement bi keroog moom moo demoon représenter Sénégal muy concours Miss Petite Taille. du taar rek moo taxoon a jóg lii waaye ay plaidoyer ak yenn ci seen ay jàmbat yoo xamante ni ñoom ñi nga xamante ni petite taille lañ leen tuddee am nañu ko président bi recevoir leen autorités yi recevoir leen donc dëkk bu ne ak ni muy topp toppatoowee ay handicapé am résilience boobu li nañ ci waxtaan bu ca kanam yi tuuti puisque Jamila actuellement mu ngi ci loge yu télévision Futur Média continuer leen en même temps di woote puisque numéro téléphone yaa ngi affiché wu ci suufu écran bi euh, Kumba madame Senghor ak waa service à valeur ajoutée ñu ngi ci ginnaaw ngeen jot ñu en direct ak ngeen ñàkk ñoo jot bu ngeen xasee ba composé benn ci suñu ay numéro de téléphone immédiatement da ngeen di bokk ci ñi nga xamee ni à tout moment mën nañ leen jox euh, ci enveloppe yi Corombaar Ndiaye Seck ñu gërëmaat la ci euh, teewaay beeg taxawaay bi comprendre l'actualité c'est toujours mieux moo gën di ko dégg ba doo xam loo ciy commentaire ñu ngi waxtaanee coowal kii ñu naan Dieynaba Sangare Euh, di jigéen joo xamee ni paraît-il dañu ko maltraité ba noppi tam tëj ko ci kaso bi boobu nag ba tey borom xam-xam yaa ngi waxee boor kenn ku ci nekk ak euh, li ngay expliqué ñu bëri di naqar lu mbir moomule am na commentaire boo xam ne def naa ko ci personnellement tout à l'heure avant le journal mais on va continuer d'expliquer aux téléspectateurs ce qui s'est réellement passé. effectivement euh, Pape Cheikh ni ñu ko waxee sànq coowal Dieynaba Sangaré Ndiaye dafa ñëwaat rek indi leneen loo xamante ni wala dolleeku ci jigéen ñi ñu ngi koy dund euh, file ci euh, Sénégal ba tax na am nañ ci réaction wu ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa AGS ñu jaare ko ci ki yor seen kàddu di Wopa Diallo ñu ñëwaat un peu Pape Cheikh indi taxawaay ci li nga xamante ne moom moo di chiffres yi parce que quand même c'est alarmant euh, anam bi nga xamante ne noonu la jigéen ñi di souffrir ci biir kër yi tey euh, li nga xamante ne moom moo di sondage yu euh, mujj yi dem na ba ci li nga xamante ne moom moo di 47 pour cent quand même mu doon lu euh, bari lool te mu war a mën a ñàkk malgré xeex yi nga xamante ne yëpp ñu ngi koy xeex combat yi ñuy porté yëpp terewul jigéen ñi di wéy di souffrir et sans nag ñu compter ñi nga xamante ni Pape Cheikh elle souffre en silence. Mm-hmm. elle ne parle pas amuñu ku ñuy waxal parce que peut-être bëgguñu seen sag sàggeeku. Mm-hmm. bëgguñu seen euh, sutura xaweeku. ak yu mel noonu am na yoo xam ne jarul sutura de sutura ba rey sa bopp. door de du ci bokk. sutura ba gaañu. ay dóor moom baaxul ci diggante moom. non non non baaxul ci baaxul ci voilà far am na ñu bëgg violence nag ñoo xam ne dañ leen di dóor ñuy continuer di ànd ak seen far yeeg seen jëkkër yi loolu moom dara baaxu ci. baaxul de diggante moom bu tàmbalee am violence rek daw ca ba ngay ami tànk. Mm. parce que yenn saa yi yàlla bëgg la sowe wan la lu ndaw ci diggante pour nga génn ca nga dëgër bopp toog ca gis nga boo ca toogee lu rëy la cay génne. <laughs> yéen jàppee leen ma dof bi yenn saa yàlla woon la as lëf ci diggante lu xaw a doy waar loo xam ne yow xamuloo ko sa valeur ak min la yaree xamuloo loolu yàlla daf bëgg a wax ni génnal ci lii balaa trop gis nga boo dëgëree bopp ba ba sax ca. la la cay génne lu rëy lay doon yàlla nañ ci yàlla musal amiin yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ ci yàlla musal ñi nekk ci ay relation yu compliqué li tubaab naan relation yu toxique yàlla na suñu borom suturaal leen ñun ñëpp sutura la ñu bëgg mm. kenn buggul sa sag sàggeeku gis nga boo toogee ci euh, ñun ñëpp ay voyeur la ñu ah guddi boo téyee sa téléphone li lay gën a intéressé mooy ay nit yu toog di waxtaane seen vie privée baaxul yàlla nañ ci yàlla musal mm. ku sañoon sa problème personnel kenn du ko yëg. xam nga ni ma bi Jeynaba na Jeynaba mii ak ay mbokkam lii metti na leen. waa ji itam ak ay mbokkam metti na leen kenn buggul man mii bëgguma ñu waxtaanee sama sëy ma ñu waxtaanee sama vie privée kenn buggu ko. amaana sax yenn saa yi mën nañ ko baal ku siiw wala ku people mën nañ ni kii dafa siiw moo tax ñu koy waxtaanee mais léegi réew mi amatul siiw amatul ñàkk siiw lu la mënti dal rek dañ koy waxtaanee. lépp ñëpp mu ngi ci place publique bi ça fait mal et li ma naqari itam bokk na ci donneur de leçon yu mel ni man sama classe gi ñoo gën a doy waar ñëpp mais ñoo fi dàq joxe ay leçon yal yàlla suturaal ñëpp daal. amiin yaa rabbi en tout cas lool la lool la loolu la ñëpp di ñaan mais comme je disais tantôt malgré xeex yi yëf yi mu ngi wéy di euh, yokk ñi ngi teg nag ay jéego ngir xool ana naka la ñuy def ba non seulement ñu éradiquer lépp lu jëm ci wàllu violence mais ñuy mën di taxaw ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy dund. Euh, mën nañu déglu kàddu yi nga xamante ne Wapa Diallo denk nañu koy et puis on se retrouve violence mooy bépp métit boo xamante ne dañ koy yëkkati teg ko ci nit euh, mën na doon wax ju metti mooy violence verbale mën na doon jëf ju metti maanaam nga dóor nit ki mooy violence physique mën na doon nga noot nit ki ba lu mu la wax rek mënoo cee teg baat mooy euh, violence psychologique te mu lay sonal tam nga ci xalaat mu lay teree nelew te lay lekk te lay naan di la tiital itam yooyu yëpp ci violence psychologique la bokk am na yoo xamante ni di nangu sa alal nga dem jaay nit ki ñëw nangu li nga li li nga li nga jot a jot jot am ci njaay yooyu yëpp ay violence euh, économique la wala ngay teg ci doon nit ki loo xamante ne def ko di ko dóor ba di ko gaañ yëpp ci ay xeetu violence la. malgré xeex gi ñuy xeex euh, euh, violence basée sur le yi ñu ngi wéy ba léegi di di di gën a yokku boo jëlee chiffre yoo xamante ne ANSD moo ko moo ko moo ko moo ko moo ko feeñal ci atum 2023 mooy ci mooy daaw dafa ne ni 47 pour cent maanaam téeméer boo jël 47 pour cent yi mus nañu subir violence ba léegi chiffre yoo xam xamante ne gest moo ko yor moo gën a moo gën a métti parce que euh, geste yi mu publier dafa ne euh, boo boo jëlee kër gu nekk euh, ñu ngi fay ñu ngi fay mettital lu ëpp boo boo jëlee téeméer bu nekk euh, cinquante pour cent cinquante virgule deux pour cent yi ñu ngi leen di métti mettital ci biir kër yi euh, trente huit point virgule un pour cent yi ñu ngi leen di mettital ci biti parce que léegi ba léegi boo xoolee mettit yi ñuy teg ci biir kër yi moo gën a metti ak moo gën a diis mettit yi ñuy teg ci biti ak yoo xamante ne yeneen lieu yoo xamante ne six virgule yi foofu lañ ko foofu lañ ko samp pour wax leen rek naka la violence yooyu bëri chiffres yi ba léegi nag chiffres yooyu doyul parce que da ngeen di xam ne boo leen jëlee par exemple cas bii ñu nekk nii chiffres yoo xamante ne ni da nga da nga koy jël ñi ñi mën a wax ni biir nañu violence wala ñu mën a exprimer ni que subir nañu violence ñooñu ba léegi bokkuñu ak ñoo xamante ne duñu wax en général violence yi dafay concerner toutes tout les tranches d'âge mais li ci li li toutes les tranches parce que gis nañ ni que euh, tegu nañ fi ay mettit yoo xamante ne ay xale yu ndaw lañu fekkee woon nañ fi euh, euh, at bi ñuy yegg ci xale boo xamante ne juróom benn kese la amoon mooy six mois donc violence bàyyiwul benn fekkee woon nañ fi itam bi ñu dalee ci ci ci ci ci benn maam boo xamante ne am na plus de quatre-vingts ans ñu daloon ci kawam yegg ci kawam itam moo tax ñu war a xam ni que violence amul benn âge mais en général li gën a fës ci violence yi ñu mooy koo xamante ne am na fukk ak juróomi at ba koo xamante ne ne am nga 49 euh, euh, ans. voilà mu ngoog Wapa jàlloo lañ doon déglu mu doon indi ay leeral ci seen taxawaay jëm ci li ñu tuddee violence faite aux femmes mën na nekk euh, violence verbale comme mën na nekk violence physique bu mu ci mënti doon baaxul. bu mu ci mënti doon baaxul Pape Cheikh cest il faut. ñu combattre li nga xamante ne moom moo di violence sous toutes ses formes ak ci côté bu mu mën a jógee Euh, tey li nga xamante ne moom mooy prétexte bi wax naa ko sànq mu di euh, jafe-jafe yi nga xam ne guddi gi ba njaay moom euh, mu ngi ci on pense vraiment à sa famille bi nga xamante ne tey ñu ngi ci ay guddi yu bët setagul comme je dis gis nañu frère am jóge woon fi nga xamante ne moom moo di bitim réew ñëw ngir assister ko malheureusement dafa am ay contraintes ci liggéeyam ak yooyu il est obligé de delluwaat pour mën a gérer li nga xamante ne moom moo di liggéeyam xamante ne moom la ci euh, ñëpp def xam nga Pape Cheikh bu ñu demee ba naan au moins 47 pour cent de femmes sont violentées. bah oui y très grave voilà et 47 pour cent yooyu ñi ñu yëgul bokkuñu ci. Ah, ah, donc c'est c'est c'est c'est compliqué. et yenn saa nga gis jekk yeewu ndeysaan bandaas bopp bi boo ko laajee mu ñu dafa mbëkk. damaa male daanu mbëkk. moom kay gis nañ fi ne. non non c'est c'est c'est très compliqué gis nga boo laalee màgget. <laughs> boo laalee màgget. gis nga boo laalee màgget. gis nga Pape Cheikh on est dans une société boo xam ne on est désolé de le dire comme ça mais limite yaruñu góor ñi ci ñi ma ko sañ a wax jigéen ñi la ñuy yar. et ça ça pose problème. il faut ñu xoolaat nekkinu góor ñi ak jigéen ñi. Mhm. sëy xare la wii góor ñi euh, nañuy muñal jigéen ñi jigéen ñi góor góor lu ci sëy yi gis nga mhm. et puis Pape on porte des combats aujourd'hui dinañ ci wax coowal jey na ba coowoon nañ fi yeneen coow mais malheureusement après aboutissement yi moo dul moo dul moo dul am. Eh, ah fii kay coow par saison la yëf yi souvent du mujj fenn fi ne léegi coow li jaal feneen te ah. lii c'est affaire très grave. damay damay ku nekk mu ngi naan euh, euh, ana lan moo tax waa ji c'est comme si dafa am ñu koy protéger wala kenn comprendrewul léegi rek maa ngi gis suñu euh, confrère Makhali Ndiak Ndoye bu l'observateur di wax ni procureur bu maatam ak ki nga xamante ne ñoom ñoo di euh, ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy saytu lépp lu jëm ci wàllu yoon ci côté boobu ils nous doivent des explications. Oui, mais après, parce que Pape bi ndaw si indee plainte oui mais Pape Cheikh bi plainte amee quelques mois avant buñ ci taxawoon taxawaay bi war. yàlla dëgg rek la bëgg coow li du agsi fii mhm. parce que ki sonn bay wut wàllu ci yéen mhm. mu mel ni dañ ko négligé ba muy jéem a wutal boppam échappatoire mhm. ba lii fekk ko ci quand même c'est un problème nañu ko wax aussi te dee am na foo xamante ni quand même na am na ci taxawaay bu ñu waroon am boo xamante ne amuñu ko on a besoin d'explication par rapport à ça l'état de santé de la fille se dégrade ngal la luñ ci mën a oui oui lépp luñ ci mën a dox quand pour mu génn retrouver sa famille xamante ne moom moo xew ci mbir mi nañu ko def et Pape Cheikh aujourd'hui je suis désolée de le dire encore on parle des femmes on parle des hommes ci maltraitance yi ñuy teg jigéen ñi. Mhm. mais bu ñu jógee ci lii suba jigéen leneen dina ko nakari te jigéen moo ko koy teg suñu ay combat neexu porté yow réew mi combat neexu porté wax ji du neex parce que tey mën nañu défendre ba suba jigéen dina teg moroomu jigéenam lu ko gën a metti jigéen ñi ñooy sëriñtu seen moroomi jigéen ñooy tas seen ay sëyu moroomu jigéen ñooy yëngal seen ay kër ñooy yëngal seen ay doom c'est c'est c'est dommage je dis on doit repenser cette société là mm. on doit revoir notre façon de faire mm-hmm. anam bi ñuy dundee en société parce que mm-hmm. lii lépp c'est éphémère et luy luy luy jeex la luy jàll en attendant on porte le combat de Dieynaba on pense à on pense à ci jógee nañu xoolaat suñu bopp. Mhm. ñun ñëpp nag parce que ku mhm. ci nekk ci ñun boo yeewoo yaa ngi def sa moroom lu war a tax. mu faj ko mu jur beneen coow te wallaay jaru ko. waaw en tout cas le message est important donc nous pensons à cette Dieynaba Euh, jigéen boo dee seeg moom jàppee ko sa nday rek jile sa ndey jile jur muñal leen ñu moom jigéen rëy nañ làmmiñ doy nañu waar waaye ah, muñal leen ñu rek waaye yenn saa yi ngeen wax yu rëy wax ay bal mais <laughs> yenn saa yi ci biir kër gi ngeen wax ay bal mais ay bal jarul dóor yenn saa yi ngeen wax ay bal wooyee jarul dóor quand même dóoree ay chocolat quand même ay or déedéet ak beneen ba rek ak bi ma wax sànk rek <laughs> xaaja guddi bu la sa jabar tooñee yow fët ko rek Pape Samba xam nga li may wax <laughs> nee na xamu ci dara man de solution boobu laa mës a laa mës a am moo tax ku ci dem rek da bëgg ñëwaat man de boo ma tooñee man boo ma tooñee midi trois heures de matin laa koy faj. bu méttee day métti ci xale yi xale yëpp jàng nañu nañu wax lu ñu neex nañu wax lu ñu saf. interdit au moins de dix-huit ans amul. xoola man boo ma tooñee midi maanaam fi may woowe maa fi nga may tooñee maa ngi woo Samipol. déggoo ma de fi nga may tooñee noonu di ma wax ay bal di ma tracté di nga mën a gaaruwaale. waaw di ma tarak di ma gaaruwaale ci nit xoolal maa ngi maa ngi bind stamipol man nii rek laa ko jàppee ok man ngay waxal ok <laughs> stamipol am ngeen ban marchandise a bees gel bi yónnee ma ko whatsapp ne ma am na nu lii am na nu laa am na ci boo xamante ni day tàng ci biir sedd ci biti am na ci boo xamante ni dafa mel ni laalo bépp yëpp daf ma koy expliqué de. waaw waaye li may wax ni yéen a ko xam nante yi rek a xam li may wax fii ban xale fi compli may wax yow da ngaa compli may wax. déedéet Pape wax. ku dul bandi doo soos xale yi komp ñu li may wax dama ne sa jabar bu la tooñee jëlal numéro Stamipol xoola pendant que mu lay track ak di la wax ay bal ci biir kër gi bindal message naan ko xool lu am tey mu naan la xool bi am tey day day dugg tàng génn sedd yooyu yëpp dafa baax xoola bu 3 heures du matin jotee nga sifaay ko ba bu xëyee ah, man ay brunch lañ ma daan defal chez moi brunch au lit moom mi la tooñ démb mooy xëy defal la ndékki soo xamante ni après coow du jëpp ngeen ànd sa kër yaay ngeen yendu loolu dafa neex. dafa neex. ngeen àndandoo imaginer ngeen fanaan ngeen fanaanee neex neex xëy ànd ak sa jabar ak say doom sa kër yaay kooku bu demee sa kër yaay ci kër goroom yi sa yaay bu ko xeeloo sax mu ne garaawul sama yaay la. Mm. te ñoom bu diggante bi neexee lu lu leen seen yaayu jëkkër yi def day mel ni seen yaay leen ko def xam naa li may wax yéen tamit. dëgg la. xam naa li may wax yéen Paul. pour ku xamul Stanipol duggal kii eh, TikTok nga tapé Stanipol Stanipol dañu neexal sëy pare nga yaay. yaay pare na ma chère yaay pare na de man barki yàlla sëy dafa neex pourtant mën na neex de barki Serigne Touba mën na neex. Ah, neex normalement. mën na neex. mën na neex léegi kon ñu joxante rendez-vous ak yow suba. demain incha allah incha ko j'en mhm. naa la fukki yoon ak juróom. ah daa baax. dem sama mag la bu ma lakkal amul ma njëriñ mais sonal na ma. Ah, man defe ay jéeg yu baax rek laa ko xamal. ku amul jaara ak Fatou man ku amul njëriñ ku amul du ma la nuyu man. <laughs> fi ne nii moom ñi am njëriñ rek li gaay naan Pape Cheikh daa mun na woyaat maa tay li mbëtt bëgg la bar bëgg ndax yaa ngi dégg man nuyu ma ku amul njëriñ kon nga yey de man ay bugguma laay nuyu bugguma France la nekk de temps en temps mu woo GP bi de temps en temps mu woo mu yónnee ma ay bagages. mooy dëgg Jamila de temps en temps mu woo GP bi mu yónnee ma ay bagages ay côtelettes. de temps en temps Ibou Diop Ndiaye woo GP bi mu yónnee ma ay bagages. yenn saa ay sa ñing neex a fekk France ma wax ak moom mu ne ma wàññil naa la billet d'avion yooyu ndax li ngay tukki dafa bëri. yenn saa yenn saa ma woolu waa Amérique ñu am lu ñu ma yónnee sama xel mi daal lii daal laay mayee dédicace léegi mag la ma sama xel mi dem na léegi daal di def ci carrière bi. Mhm. dédicace am lu mu àndal. ndax yaa ngi dégg bàjjan mbend anniversaire am tay la waaye du ma ko souhaité ndax bàjjan mbend boo ko du la yónnee Orange Money <coughs> ndax yaa ngi dégg li ma expliqué donc ki nga nuyu noonu bu dee am na njëriñ. yàlla na jàmmam yàgg bu amul njëriñ nag kon nañ ko bàyyi foofu <laughs> maman Kiné Lo tamit ñu ngi koy nuyu yaay Papito on va accueillir dans quelques instants Jamila qui va venir nous voir may nuyu sama bàjjenu bopp